salaamaaleykum tout le monde Mangi ngi ziar ñëpp di nuyu di président au Saint-Père Abdou Karim Gueye euh, activiste membre du mouvement Nitu Dëgg alors tey dama ñëw pour def une vidéo euh, boo xam euh, dafa xaw a uti tuuti ak yeneen vidéo yi vidéo bi euh, dafa faire ni genre tàllal loxo sénégalais yi la tàllal loxo soxla seen soutien financièrement parce que ku ne xam ne ni Nitu Dëgg mouvement la boo xamante ne ni boo xoolee principe du mouvement yi muy

ku am problème yaa ngi ñëw suñu kër la suñu kër yi ni recevoir ñi ñi recevoir des fois ci mbéddi yi des fois ñu dem ci kër jamm des fois ñu dem louer fuñu ñu recevoir nit yi yàlla def nak depuis un bon bout de temps ak nitu dëkk diaspora do nañ liggéey pour ci walu siège pour gëna mëna ñongal liggéey bi fuñu tok dal fa mëna dal ñi dalal nit ñi ak ñam ci ay jafé jafé bi loolu amee nag liggéey nañ ci bobu léegi ñu ci liggéey euh ñu dem ba tollu ci fo xamanteni ni vraiment euh, commencé siège bi nit dëgg diaspora jàppale ñu ci location bi ci caution yeeg ñu dem ba am bërëb bi war ko defar itam war ko équiper jàpp nañ sax ci équipement abeeg yooyu mais dafa am lu bari lu des alors ci ñu gis ci manque de moyens yooyu nag ñu bëggoon tàllal loxoy sénégalais yi nga xam gëm nañu xeexu mu nitu dëkk bi gëm nañu combat bi gëm nañu ñun li ñuy xeex dëgg la ñoo def ci seen loxo def ci seen loxo boobu nag mi ngi d'abord ci ñu euh, dara dara jotoon nañ fi def ay cagnotte nag pour siège am ay mbir yu ci xew ñu nekk ci ay détails mais bi yoon ñu ko tek ci loxoy woor euh ñu wax rek ni dañu bëggoon vraiment ngeen japp ci euh képp ko xamni bëgg nga japp ibbi nañ Kopar Express pour ku bëgg japp ci siège yu nitu bi ñu équipé ko yeggali liggéey bi parce que dañ ko wara inaugurer le 29 te siège bi ñu ngi koy tuddee Sidi Lamine Niass suñu idole war ko inauguré le 29 septembre bëggoon nak vraiment yeggali liggéey bi euh ak fi ñu jot tol ni soxla soutien au Sénégal yëpp xébuñu dara lu nit mëna def nga participer ko ci alors lien bi nga xamanteni moy lien wu Kopar Express bi nak mi ngi ci souf bo xolé dina nek commentaire ci vidéo bi ni c'est que après vidéo bi mom moy nek commentaire ci souf lien bobu ku ci cliquer di nga mën participer ci ci lien bi lo ci def xébuñu dara lu ci nit mëna def rek nga def ko ñu and liggéey xéxal Sénégal xéxal dëgg xéxal valeur xéxal diine xéxal njub xéx pour changer Sénégal xéx pour souveraineté xéx pour dëgg xéx pour dëggal ak dëggu xéx mooy fóot raxasaale say loxo donc lolu dal mo door mo waroon ñu doon def vidéo bi euh, di leen remercier bu baax baax gis nañ seen soutien euh, gis nañ ñi abonné ci chaîne bi yëpp gis nañ ñi ngeen xam yéen ngi japp ci liggéey boobu léegi ak appel téléphonique et tout euh, bi tamit ngeen di gis aussi ci ci page bi tamit ci page bi tamit numéro Ousmane Sarr la ma mouvement Nittu Dëgg ak sama numéro man amna lien Wave amna amna Orange Money mais lien bi Copper Express bi aussi mi ngi ci suuf